ñu dellu siwaat li ñuy def nag laata ñu bàyyi presse bi ak euh, Gris Bordeaux Modou Lô mbokk yi mooy ñu woo ñaari mbër kenn ki ñaar ñi ñoom ñëwunu muy yaawu jaal ak euh, bodi ndegamit yaawu jaal yegsi na léegi ñu ngi koy jox équipement am le temps muy ñëw ñu jël Ekon ak Jal Diop Ekon ak Jal Diop jóg leen ngeen taxaw jox alaaji Papa Niang ak Pape fay joxal ma leen ku nekk micro alaaji joxal kii acc Akon ak Jal Diop Akon. ñoom ñaar dañoo niroo moo tax xam mu ne eh Jal Diop boo ragalee kii da ngay wax jege si ko voilà. et eh, yaa ngi paase sa zone ah. bon yéen ñaar Jal waxal waxal ak Akon loo koy wax. waaw ah, bismilaahi mina seytaani rajiim ginnaaw sant yàlla julli ci yonent sant sama ñaari waajur maa ngi sant mbooloo mi fi teew yëpp di sant waa WWPR di sant euh, ñu fi teew yëpp waaw di nuyu sama adversaire <laughs> nga nag na pare eh, bon yow moom mooy jal jooma e waxal ak waa parce que waa ji dafa mel ni xamul lan la la war wax yow loo koy wax bismillahi rahmaani rahim e eh, kon teyel nii maa ngi maa nuyu ñu fi teew ñëpp waaw ku si nekk sa tur ak sa santan waaw di sant yàlla di julli si yenante bi di gërëm sama ñaari waajur Dial Diop nag aw lu ma koy wax waa le 15 dina gis li ma indi bu baax ndax man aw ma aw ma dara lu ma koy wax parce que nanguwul wax bu waxee nag ma wax wala boo ragalee nga wax ko. toll wuñ ci wax dañuy toll ci ci ci nuyoo bu ñu waree wax nañu wax yi yii dama yaakaar na ngaa tiit parce que boo di yaakaaree ne man da nga ñëw fii pour du ma wax lu la neex dangay wax sa da ngay wax lu la neex rek fii moom. di wax kii wax si bés ba bu ñëwee rek da nga xam ne. ñaar neex. waaw man du ma ñëw pour daan la di la wax lu la neex. <laughs> yow yow tey waroo dégg lu la neex. bëgguma dégg sax lu ma neex sama waay. kon bul wax ne man dama lay wax lu la neex dara lu ma neex. ndax leer na combat mënul yomb mënul neex. nii la dàqoon waay Karaja waa garaawul. waru bool bool yi rek la def dara du ci set. loo indi tamit ma tax ci rëpp. comme waru bool bool yi loolu rek laa lay wax. man bool bool laa lu leer laa la wax. waaye waxu jàmbur nga créé. wax gëm sa bopp nit day créé gëmal sa bopp fii. ñun mbër bu fi nekk dafa mooy référé woo mën nañu wuy ma ñun mën naa leen dëkk du ñu ay ragal. ma ne affaire naa leen dëkk ñu ay ragal. ma ne affaire ragal yaa ko ñun amuñu dara lu ñuy tiit. déggoo li ma déggoo ma de. ma ne defal ndànk defal attention. waar bi na nga fexe ba taxaw dëggal sa bopp. li ngay wax nii bu lamb ji dina gaaw. du gaaw bu gaaw bu bu yéexee ci la. waa ba ma jógee ci loolu maa ngi woo waa Ndar yëpp ak waa Soumbédioune ak waa Gueule Tapée yow Ndar nga fa laa yoroo maintenant fa laa juddoo fa laa maa ngi ah. woo ñëpp nag di woo waa daara ja waa famille Xulam Rasul ñëpp maa ngi leen di ñu ñaanal ma ak waa koñ bu ndaw waa Dames Sanca ba Kusum Jekko ak Moti Pom ñëpp maa ngi leen woo ak Marieur kenn ñëw kenn bu dul daan kenn ñëw sa combat bon eh, joxante leen loxo yéen ñaar waaw man tamit maa ngi woo waa di woo waa Anne Maris waa Yaraax ah cité Faysal cité cité cité ak waa yëpp maa ngi Sénégal yëpp daal di woo sama sama mbokk yi waa Sambe di woo waa Diourbel